yaram bi di loxe defe ñii toog nañ seen yaram loxul gis nga moom nu yaramam di loxe instant bi mbokku jullit yi mbokku téléspectateurs yi dal si leen ak jàmm ci TMS TV ñuy amaat beneen situation fii ci kër xalif di des Djinns na Moulé Sow le maréchal the king of the king euh, kii nag dafa nekk soxna soo xam ne dafa ànd ak boroom këram ànd ak beneen ci euh, ay mbokkam léegi nag borom kër gi lañu ñu bëgg a laaj ay question par rapport ak moom li muy dund ak euh, soxna si nga xam ne jinne daf ko jàpp moom borom kër gi sax nee na dafay yëngu ci wàllum faj maanaam dina utiliser arxulaan di jéem a faj yooyu donc am na lu ko jinne bi jot a wax léegi loolu lañ koy laaj mu wax ci sëñ bi na nga def ñu ngi lay dalal ci TMS TV tour beeg sant bi. macha allah euh, xam naa ni ñu bëri bu ma gisee dinañ ma xam ndax ci li may yëngu muy tagg Seydina Muhammad ci eh, tabaarakallaahu Tiwaawan waaye ñu nekk famille buy yëngu it ci wàllu eh, ñaan ñi ma xam xam nañ loolu ci sama askan. ñu ngi may wax Abdoul Aziz Ndiaye. Abdoul Aziz Ndiaye. Mhm. bàyyee ko. non ñu ngi fii Dakar waaye Tiwaawan la ñu def suñu lépp. waaw fa la dellu. Mhm. est que mën nga dellusi ci li nga jot dund ak soxna si balaa ngeen xamante ak bi ngeen xamante ni ko jinne bi di def ak li nga jot a jëflante ak jinne bi. waaw euh, yàlla dogal na soxna si ñu xamante bu yàgg ma takk ko mais boobu xam naa ni am na jinne xaman naa ko mais boobu préparé nañ def suñuy sarax ak yi ñu xam euh, bi ñu demee ba ci biir ba veeyu takk bi sax jinne ji yàq na sama oto nu mu yàqee sa oto parce que maa ngi waroon a dem gàmm ji lu ko war faa dem programme ma jaar pikin na xaaral ma jënd ay lekk doog dem bi ma tegee benn mandikat moo yor 4-4 ñëw rek mbëkk oto bi ci ginnaaw lépp yàqu mu daw après moom bi ci kanamee la ma expliqué ne ma man maa yàq oto bi ndax man maa maa xabtal waa ji mu mbëkk sa oto jinne bi wax ma lool ci jamono bi ñu jotee mu ne maa xabtal waa ji fexe ko mu mbëkk sa oto ba yàq ko parce que boobu mënalutuma la dara def nga say sarax mënuma dara ci sëy bi ma ne naa yàq sa oto bëggul woon sëy bi am hmm. mais dafa dem ba amul pexe Euh, bi mu demee ba amul pexe nag mu ne ma looloo tax ma yàq sa oto. Hmm. ñu dem ba ci biir muy feebarloo xale bi. Hmm. li ma ci gën a kii nag dem nañ ba guddi bu ma mosaan nekk ak sama soxna ndeke moom mooy ñëw maa ngi la dégg nga koy sànq sa waxtaan. Hmm. ndekete moom mooy ñëw. du ma ci xam dara du ci xam dara. après nag laa laa ko laa ndax. nga comprendre. su si laa comprendre ndax. su ma nekkee moom rek damay teg alxuraan mbaa ma commencé jàng ay aayaat ma gis mu daw. wala ma jël son cerno def ko son. Hmm. bàyyi ko muy daw ci nopp bi. Hmm. damay gis ni am na changement. ci laa xam ne jinne ngi fi. may dund ak moom noonu mujj gi ñu dëkk ci xeex ah, nag moo ngi sàcc di ma xool dindi ma kol bi foofu. <laughs> dindi ma kol bi. Ibrahima dindi waaw. ñu dëkk di xeex nag wax dëgg yàlla. Hmm. ñun nag alxuraan xam nga ko ne ak li la yàlla dénk. maa ngi koy juñu sànq ci biti daan ne. ku ku dem ba mënoo neel mënoo rek. Mm-hmm. yàlla mooy kiy maye te kuy jullit da ngay nangu maye suñu borom. Mm-hmm. sëriñ Thierno mii li ko yàlla may. Mm-hmm. nañ ko nangu ñu ñëpp donte maa gën a ndaw ci sama famille. waaye nañ ko nangu. ku mënta dem Dakar neel aw ma paas rek. waaye bul ne dakaar amul. moom nag yàlla dénk na ko muy dem Dakar nu mu ko neexee. kon ñun fi nu yem dañuy xam ni foofu la ñu xam ni loolu lañu ñu yàlla dénk. loolu la. wa anna al fadla bi yadillaahi yuti man yasaa loolu la alxuraan wax mhm. nee na maa jël samay may mhm. ni baaraam yi wuutee noonu laay jëlee lépp teg la mhm. waaye ni ma defee baaraam bu mag bi terewul may naa la yow bu ndaw bi waaye nangulal bu mag bi rek boo ko nangulee da nga ciy am avantage am ci avancement te doo mer waaye ku fi yàlla teg nga jéem ne du dem wala du nangam yaa ciy xala gaañu looloo tax ñu ñëw nangu xam ni yàllaa fi ne yàllaay kiy def yàlla ni mu bindee yonent bi yemalewu ko ak lenn. Mhm. noonu la bindee ci biir jaam mais ñu yemalewul ak ñenn. sang bi da cee bokk te mhm. yàlla rek moom ma tax a wax. Mhm. ci alxuraan ci lañ judd ci lañ yaru euh, loolu kii la rek. yàlla dogal bi ñu demee di dem di dem di dem ba moom mujj gi mu sonn man ak samay mbokk ñu jàpp ko di ko sonal mu tuub. ba tudd Ibrahima ne tudd na Ibrahima. mujj gi mu ngi doon commencé jàng alxuraan. Euh, jëm ñaaju ci samay mbokk foofu. Mhm. mais doo dañu dem ba ci biir may gisaat ay quelques affaires yoo xam ne leer na ma ni mu ngi noonu ma seetlu it ndaw si julli dañ ci daan xuloo man ak moom di ci meroo man ak moom. te moom nee na tuub na te moo diriger xale bi su guddee mu ñëw ne ma lan ngeen jote ma ne ko julli mu ne ma noo nangam nangam te bu ma nee xale bi jullil mënuma ci dara ma xam ne kon tuub gi est que dëgg la am du dëgg. Mhm. ku baax la nag du ma nëbb parce que da daan ñëw ñuy waxtaan guddi gi muy waxtaan ak man lu baree bari. Mhm. ci boppam. day ñëw maanaam ci jëmmi xale bi. waaw ñëw ñuy waxtaan. may expliquer lu bari sax daf ma ko daan wax luy am ak luy ñëw ak luy daal xale bi. Mhm. yëpp daf ma ko daan wax. ba ndaw si bi mu tollee diggante benn bi suba teel xale bi daa dem bay jug man mu te mu ne maa téye man maa tànk yi bañ mu jug ma ne ko lan la mu ne ma dëmm yi ci koñ bi dañoo xam ni li mu àndal dafa nekk loo xamante ni kilifa lay doon moo tax ñu bëgg koo yàq. Mhm. ñoom nag ñu ngi ci buntu kër gi di ko xaar moo tax ma mhm. téye tànk yi mais expliquer ma ci yooyu. ma jàpp ni kii benn jour leen rek moo metti bi ñu amee man ak moom coow maa xale bi mu ñëw dugg ci moom ci boppam jinne ji. Mm-hmm. werenteeg man maa moom ñu werante ba mu tàng. mu ne ma mënuloo ma dara yow waaye man it mënuloo ma dara te li la gën a laay def mooy dinaa tëddee xale bi sa kanam te doo ci man dara. moom jinne bi moo wax loolu. jinne bi wax ma loolu. mu ne dina tëddee xale bi sa kanam mu ne ma dinaa xale bi ci sa kanam. te doo mm-hmm. ci mën dara. dëgg la wax dëgg yàlla mënu ma ci dara. Mm-hmm. mënu ci dara ma toog bàyyi ko mu dem ba jëmmi jamono ñëwaat di wax ak man faalewu ma ko damaat ba jëmee jamono ñoo di wax ak man faalewu ma ko. moom jinne bi waaw. wóoru ma ndax def na am deful. waaye wax na ma kàddu googu. waaw metti woon na ma lool nag ma noppi rek. Mm-hmm. parce que am na loo xam ne boo mënul waaw kay. li ma wax sànq rek ku ne daa am fooyam ku ne danga am sa frontière. Mm-hmm. waaw avion moo mën a naaw dem waaye oto mënul naaw. Mm-hmm. te moo gën a oyof avion. waaw lu tax bu yéegee ci kaw wadd te avion gën koo diis bu yéegee ci kaw du daanu. Mm-hmm. lu tax bato gën a diis gën a gën a diis oto. Mm-hmm. te bato bu nekkee ci kaw du diig te oto bu duggee daanu. Mm-hmm. mayu yàlla ngoog jaam ñi yemuñ. haazal haqqal mubiin yaa ustaaz shukran laka min kalimatika donc nga wax fi lu am solo macha allah donc explique na digganteem ak soxnaam donc li muy dund mel na da ànd ak euh, magam la wala rakkam la. d' accord dinañu faral di wéet est ce que moom peut am na lu mu la jot a nettali loo xam ne jinne bi wax na ko ko. sama rakk bi waaw bis mos naa leen fa bàyyi dem ay jàng comme guddi gi la day tiit ma ne kii wéntali ko. mais kii ñaari yoon nee na bu tëddee guddi day am lu ñëw tiim ko yor sama jëmm wala mu yor beneen jëmm def na ko ñaari yoon mu tiit daw moom mi wax na ma ko ñaari yoon ma ma bàyyi noonu bàyyi mu sedd ma xam ne yàgg yàgg nag xëy na yàlla dinañu indi fii. mës naa ko indi ci lu ma jinne ba. Mhm. ba amoon bese yaaw. waaw boobu laa leen jóge foofu deux semaine ma takk ko. Mhm. maa ngi ànd ak yaayam indi ko foofu. bi ñëwee xam naa kii bi jeex après ay fan jinne ji feeñuwaat ma. Mhm. ne ma sëñ bi mënuluma dara ndax ba affaire yi amee damaa rocceeku daw. moo tax. ba bi may ñëw fii mu ngi naan ma yaa ngi waaj dem ci Thierno waaye man sama yoon nekku ci ndax man damaa tuub. Hmm. ku tuub kenn mënalu ko dara man ku jub ku jub kay nga waroon wax da nga waroon wax su ma jubee hmm. Hmm. kenn mënalu ma dara waaye daal mu ngi noonu wax dëgg yàlla nag yàlla ma taxaw ku baax la waaye comme léeg-léeg mu def ay bêtises te nag boo amul dooley xeex ak jinne moom da ngay ut borom ñu koy waxee maam bu buum bu oyofee danga koy yew ci bopp yëkk kuy ba du gaaw a dagg loolu daal mooy mbir yi nee na boo xamal na ma it euh, démb na ma boo demee ci biir wax nee boo demee du ngeen ma gis ndax man ku jublaa waaye am na keneen ku fi nekk dama la ko waxul woon kii ci fajar la moo ne damaa gént benn kilifa mu tiim ma ne ma xëy na xamoo ma waaye man yàgg naa ñëw fii nag maa xamul woon ma ne nag lépp lépp lépp tilim lu mu tilim tilim madaar dafaa nekkul rek nañ dem ba ci borom madaar bi hmm. def naa ne wax ji leer na wolof yi leer na macha allah donc expliqué na histoire bi yëpp hmm. euh, être ñu laajaat euh, euh, rakkam rakku borom këram am na lu borom këram wax na sax ne jot na ko ko wax mais ñu laajaat ko moom tam mu expliqué ñu ginnaaw moo doon wex wéet ak soxna si di gorom peut-être am na loo xam ne moom wax nañ ko ko wala dund na ko ak jinne bi nga xam ne moo jàpp euh, donc gorom mu expliqué ñu ci tuuti soxna si ñu ngi lay dalal ci TMS TV tur bi. waaw salaamaaleykum tur bi Binta mhm. Ndiaye sama mag bi sax dama naan kaa sa néeg bi dama ko ragal. da nga ragal néeg bi. waaw ndax bu ñu tëddee comme ci kay daa lu may tiim. Euh, am na jour boo xam ne fanaan man ak moom man kii ñoo tëdd. da ngay am na lu lay tiim. doo xuppi sa bët xool wala. non non damay mel ni man kuñ takk si lal bi. mais am na jour boo xam ne kii dafa jug doon baleek yooyu noonu man kese maa tëdd si lal bi mais sentir naa lu tëdd sama wet mel ni luy tourner kuy yëngatu. mais man du ma du mën a jug. après laa koy wax sama frère bi la bi mu ñëwee waaw waaw mais man maa ngi sentir liy yëngatu ci lal bi te man doog maa tëdd après maa ngi ko doon expliqué. mosoo nekk ak moom par exemple sa mag dem moom mu daanu di am lu muy wax wala muy perturbé wala dara. non day jékki-jékki rek comme day day bëgg di wéet moom kese. <laughs> waaw day bëgg day nekk néega moom kese wéet. te yor su ma ñëwee man maa koy forcé sax naan kaa génnal ci biir nit ñi jéeg du def nii doo def béro rek toog ñëwal nag maa koy forcé bu ñu génn dem ci saal bi te yooyu yëpp yii la woon. Mhm. bi jinne ji am na buñ jëflante xaw ma moom la am keneen ñu wax ba mu wax ay waxi yàq sa oto dama yàq sa oto wallaahi alazim bindu ma dara xamal lu ma bind. Thierno mhm. Moule sa laa bind ñett laxas ko dugal ko ci moteur bi. Mm-hmm. wa bi sharafil qur'aani azim mm-hmm. loolu war na def trois mois mm-hmm. bi mu waxee loolu man awma temps pour toog bind awma temps werd parce que ñun ci yooyu la ñuy dox te maa ngi voyage yi dara wóorul la ma wax sànq rek maam Cheikh Omar Fouti yi daa ma sa ànd ak benn taalibeem ñu dem ba ci digg géej gi taalibe bi di lab moom mu naan la ilaha illallah ne taalibe bi del wax del wax Cheikh Omar taalibe bi naan yaa Cheikh Omar moom jekk daan ne man maa dof kii naan laa ilaha illallah te yàlla bind ko bind ma. mu bëgg ma naan Cheikh Omar. Hmm. daan ne daan ne laa ilaha illallah rek diig. Hmm, maam Cheikh Omar yóotu ko ne ko. yamal fi nga yem. Hmm. maag yàlla maag yàlla waaye maag yow. yamal fi nga yem. ku ne ak sa branche fi mu yem. ndax tey bëgg dara bu taxee nga jël sa branchement dem ba ca kii bu mag ba. ne da ngay sa téléphone boo ko branché di nga di nga dégg ay jànginaar. waaye nag lii lañ tollool sant yàlla macha allah. donc bi noonu la demee bi nga defee ñetti Thierno Moule Sow yi def ko ci moteur bi. maa ko bind en arabe kay bind ko bind Thierno Moule Sow ñetti yoon ci arab lem ko ba mu sew ko ci moteur bi. dem jàmm ñëw ci jàmm nekkaat ci jàmm ba ay jëmmi jamono ba ni may changé oto bi amaatuma problème. Ah. wax dëgg suñu borom. Hmm. defe mbir yi leer na. waaw macha kàddu gi. wax yi leer na vraiment wax na. wax na lépp wax na lépp lu mu dund xam nga ñenn ñi dañuy nëbb sax duñ wax waaye macha allah lu mu gis ci nu mu Moule wax na ko yàlla mooy maye comme nu mu ko waxee rek maanaam xam nga dafa am oto bu ndaw am oto bu mag am am uh, am uh, mooy oto yooyu noonu ñu uh, transport commun oto yi ngande ngande yooyu. non avant camion yi am na oto ndaraan yooyu nu mu tuddati. oto yi ngande yi oto yi defar tali am na yi gën a ngande ngande yi comme noonu la waaw maanaam yàlla mooy bind te du yemale comme li ma doon wax sànq yàlla mooy maye maanaam wàllu jinne xam-xamu jinne loolu suñu borom daf ko teg sama loxo loolu dafa leer macha allah léegi nag ma jàkkaarloog jinne bi d'abord ñu daal di ñëw ci wax bi macha allah. hé c'est qui dindi loolu xëccal ma loolu hey yow la kan c'est qui yow la kan mbokk yi moo ngi am lu muy wax ci suuf yow la kan moo ngi def ay courte kartam waaye yooyu doxu fi loo fi mën a wax lu dul man la diw loolu yëngu fi yow la moo ngi wax ci suuf yow la waxal ci kaw sira eh c'est pas yow la kan mu ne yow la sira wàcceel sa loxo yi nga jàkkaarloo ak man wàccel sa loxo yi nga jàkkaarloo ak man jàkkaarloo ak man sa loxo yi wàccal sa loxoy yi jinne bi la jàkkaarloog man faw faw lu ful naange fawlu fulnaange amaru yaw hirnaange inna laaha anna laaha billi baadi bashiran jinna mono ko bi to lootege ta kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkor jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna olde koroyanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna sojinna so sojinna sojinna so sojinna sojinna so sojinna monoko bi tolotege talatege allan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenjidi kidon korjinna kiti saya boloya saya wonande allah saginante allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna ulde koro yanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samse samarushi samse samarushi samsi samarushi samsi samarushi samsi samarushi jinna haɓɓe mo jinna nangue mo atake ha procé atake ha procé jinna atake ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé jinna ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé ha procé jinna jahase jahase jahase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase cinna jaxase jaxase jaxase jaxase cinna haɓɓe mo nangue mo haɓɓe mo nangue mo frappé kun kan kun kan kun kan kun kan fip fap fip fap fip fap fip fap fip fap fip fap fip fap jaxase jaxase

Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, Jacase, yi gis ngeen ko defaral kiim gis ngeen ko. xam nga wax naa leen ji fii laa toog ne nii tàkk gis jinne yi moom ci boppam mooy xool ma fixé ko. boobu maa ngi toog fii boobu dugg seeguñu defaral ko kii fexe leen dindi chaîne yi balaa mu koy mu kii affaire yooyu jaaro yi ah, waaw mu gaaw ah pare nga ah. da nga koy defar après bi yaay ah, takk nga ndigg bi yëpp normal jinne bi dafa am doole ah doole kese la jinn mënoo koo bee waaw takkal ndigali ba mu dëgër mënoo koo bee tooloo tege talaa tege allan annabi kantan ley udde dow uddi hakkunde nden jidi kidon kod jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu ceerno muleso Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow Cerno Moule Sow bàyyi lii day baax ñuy gis na parfois mbaxane bi day naaw c'est important ñuy xam waaw leen ko ak man Thierno Moule Sow Thierno yi gis ngeen jinne baa ngi may apporté gis ngeen mbokk kenn mosul gis gis ngeen ah jinne bi mu ngi euh, affronté le xalif général yëpp gis ñu may donc Thierno Moulay Sow nekk jinne bu am doole tëb na song xalif bi un combat extraordinaire am solo donc mu ngi noonu nee dafay song xalif bi xalif bi nag mu ngi koy won dooleem puissance am jinne bu am doole la donc mu ngi noonu ngeen koy gis alors chers internautes chers téléspectateurs donc vous voyez ki djinn qui est assez têtu qui est qui a voulu défier le khalife général des djinns. Donc vous voyez, donc le khalife général des djinns qui ne se laisse pas faire. Donc le djinn est assez puissant, il a voulu défier le maréchal, donc le bourreau des djinns, le bourreau des dëmm du moins, le khalife général des djinns. Donc ils ont eu un combat donc alléchant. Donc vous voyez, le khalife général a réussi à prendre le dessus. Donc, il a réussi à terrasser donc, le djinn. Le djinn qui dit vraiment mon pied est cassé. Donc vous Donc l'autre chapeau voilà, noir. Mhm. Donc qui s'est tombé parce que vraiment le Khalif général était en train d'avoir un combat avec le djinn. Le djinn maintenant qui est couché, un peu fatigué. Donc c'est djinn assez fort qui a voulu défier le maréchal. Ladies and gents, you seeing this very djinn. Mm -hmm. Mm Mm, mm, trying then, yes, to to challenge the Khalif General of the Jinns, the Marshal. Mm, okay, you see then, the jinn being tired, the spirit being tired, because he has been fighting with the Marshal, the king of the kings. or the king of all the kings Thierno Moulé Sow I'll let him continue with his healing session yow la kan yow la kan yow la kan eh yow la kan nit mono ko bi to lotege talatege Allah kantan annabi kantan fofowlu fuu nangue jata luru leere ɓire bamban ɓireeti bamban jata luru leere samiri sa samiri santemiri sira dege dege gongon maafode sommoye rommoye sommata rommoye seƴƴele weƴƴele seƴƴetele weƴƴele nanguma fajiru najiru aljuma bentenen ɓinteyani koni jamo ne koni ɗama ka sekki yawla kan he yawla kan mbokk yi gis ngeen changé naa mbaxane ah jinne bi il est têtu il est ma def nii mhm. mu ne nga ne bu mu nekk xale ba tey maak moom ñoo nekk. waaye nag force day dañ fi. mu ne. bul loo wax. jàkkaarloog man yow la kan. yow la kan. hé yow la kan. gis nga nii lay naxee nii la lay di naxee nee na moom la nit. te du nit instant bi jinne bi la dégg nga gis nga muy re gis nga jinne bi wala kaana la lan la de looy re fii yére bi xotte li looy re xam nga lii dafa baax nit ñi seetaan xam ni may daje gine yi yi bari gars yi dañ koy dagg mais yii bu ñu dagg nit ñi xam gis nga nii la ma def dama ko yërëm sax mais sinon sinon tànk yi day aju ci kaw xam nga ci jigéen la dugg aussi mais bu doon góor la. gaañoo ma dégg nga. dégg nga xam nga walaa kaana la gis nga jinne yi ni ñu mel defe naa ne eh jàkkaarloo. kan kii. yow foo toppee xale bi nga ne ba mu nekkee xale ah lu tax nga topp ko ah yaa ko bëgg yow ñaataat nga am mm, man duma mag doo mag ñaataat nga am tournel ni eh, na tourne tourne ñaata nga am jógal jógal non bàyyi ko ak man yow koy bàyyi. xamoo ku mu doon man duma Ibrahima de kooku daa baax man baaxuma yow baaxoo. man ba mu nekkee xale ba tey mu nekkee xale. ba mu nekkee xale nga ko topp. lu tax nga topp ko. daa bëggoon ba mu nekkee xale dafa rafetoon. ba mu nekkee xees pecc. waaw boobu. xees pecc. Mm-hmm. nga topp ko. Mm-hmm. léegi moom. lan lan nga ko yàqal. Mm, man li ma ko yàqal bari na de. lan lan. voilà. li ma ko yàqal. dama daan def góor bu ñëw di ko bëgg si. ma bañ loo ko. góor gu. ñëw naan da kaa bëgg a takk. ma bañ loo ko wala ba tiddee guddi ma tiital ko. léegi yow noo tudd. damay jaay sama tur. waaw. boo koy jinne bi reew na de nee na day jaay turam. ma ne noo tudd laa wax. damay jaay sama tur bu ma fontoo noo tudd. da ngaa bëgg ñu xeexaat xanaa. waaw. da nga may rey de. man da nga may rey. da nga may rey. ñam nga de du ñam nga. man ma ñam ka ma moom kan moo ñam. kan mu ne ka ma moom ku ñam. yow de xam naa ne ah yàlla la suturaal dama la naroon di bu garaaw boo xam ne yàlla da laa bëgg am ñu la bëgg ci suuf jàpp sama tànk yi rek ñoo di. man man yàgg suturaal yow yàlla yàlla daf maa yàgg suturaal. man duma sa morom nga ne. man maa ñaataat nga am. sama as duma la ko wax. lu tax mais du mag xale laa. ma ne mën nga ma wax tontu wala mënoo ma tontu. fors réponse <laughs> na wàcc mbokk yi duma ko may dara. <clears throat> wax wala mun mun a wax tee nga maa bañ a tooyal. ma ne mun a wax wala doo mun a wax. nga li ma bëgg a xam. nga wax ma ci xale bu jigéen bi wax ma ci jëkkëram n'est-ce pas yooyu am na yoo bëgg a wax xam. yow la kan. man daal du ma. nga ne. man maa nekkoon moom bu nekkee xale ba tey. waaw léegi dama bëgg nga siggi wax ak man nga. xale bi xam ma ban heure laa ko dugg. bu mu nekkee léegi takkal nga siggi wax ak man. non man nii lay def. non da ngay wax ak man da ngay siggi. man. jàkkaarloo ak man. man kay maa ngi jàkkaarloo. ci bët. nga ne xale bi kañ ko dugg. mu nekkee xale. ba mu nekkee xale. Mm-hmm. léegi lu tax nga dugg lu tax nga dugg ko. ah timis laa ko dugg. timis. waaw. ah daa demoon am fu mu fooy woon. bu timis jot. après mu dem ñibbi seen kër. xaritam boobu génnaat ndaw maamam boobu yónni ko mu dem woo Sira. ma xaftal ko mu dem wooyi Sira ne ko kaay wuy sa maam. siraa ne ko timis jot na sama yaay nee woon ne bu timis jotee bu ma génn mën ko sa maam moo la woo. après mu dem mu demee kooku maam ji ne ko man de woowuma la sax maamoom boobu noonu seen ginnaaw kër la dëkk mais gaañu na mu ne ko sa maam moomu yónni woon sa maam ji nekk yónniwu ma woowuma la de moom mii laa yónni ndox mu dem mu wala après mu dem mu dem kii maam ji jox ko nekk jënd jëndal ndox jënd ndox ba pare xaritam bi joxaas ko rek dóor ko rek daw mu daw di dàq ji xaritam bi rek ma mbëkkanteeg moom. xale bi waaw. ban melukaan nga yor. gisuma de benn kanam xaritam laa jël. pour ki ma àndal gis ma waaye moom dafa mën ni lumière la gis. bu ne taf daf ma daf ma ko mbëkk rek mu xam ma dugg ko après nag moom mu jàpp ni buntu kër gi la yenu ñee ma def seen bët yi. ñoom ñu gis benn xale boo xam ne chaque jour ci ruq boobu lay aw chaque jour rek ruq boobu lay aw jour boobu nag xale bi awul foofu ma jël kanamam aw foofu noonu mu mu jàll mu jàllee après ma dugg ko neewil benn bët bi. neewil benn bët. waaw laaw boolem wooyee ñoom yaayam léegi ñu wax leen is papaam papaam am benn paax. bu ne da koy faj paa bi dee xoolal man rek xajuma ci moom paa bi moo ko faj ndax xale bi dama daan def bu daan jàng ba ci yàgg rek benn bët bi ma neewil ko papaam am fu muy dem di seetlu xale bi génn ci xale bi génn ci yow waxuma ak yow de yaa jël sama jabar waaw borom këram moo toog noonu ak rakku rakku borom këram ah eh, rakk ji rakku borom këram mooy ki toog nii yow jinne bi baar noboo ko rek baar noboo ko man xale bi ku mu bëgg dama koy bëgg saf jëkkëram xale mu bëgg danga koy bëgg dégg nga loolu waaw ku ko tooñ maay dem xeexal ko ah waaw ay affaire yoo xam ne day am ma koy wan ci ay nit am na yoo xam ne nag du ma ko wax. mais yow noo tudd noo tudd. ma ko wax parce que borom këram dafa jaaxle moo tax mu ñëw fii bu fi ñëwee nag dafa war a am solution te solution bi déjà fii la koy amee. waaw. xam nga nu mu tudd Soundiata yow mooy sa maam waaw xale bi seen kër ay bambara lañu de. seen kër ay bambara lañu. waaw wow ñoom boroomi rab lañ tamit de. seen kër boroomi rab lañu. am na ñaari ma rakk papaam yu dul gis ay rawaleen jàpp. ñaari papam yu dul gis rakku papam ay rawaan ñoo leen téye ay rawaan ñoo leen jàpp nekk ñoo ngi fii walla waaw ah, ah, ñoo ngi puut du ñu gis ah hmm. léegi noo tudd <laughs> bi ma la wax neexu la. yow tudd bi ma la wax neexu la. Eh, am na ku ma jàppoon ba ma waxoon ko sama tur waaye dama koo jaay xelu mag. kooku nag du man ne kan moo la jàppoon. mais ñoo doon génn ñi yambar ñu ñoo doon génn ñi yambar ñoo doon génn ñi yambar yi di génn rek après man ah xale bi deretam deret bi deret bi la ñëpp soxla deret bi. bi. deret dama ko bëgg. waaw xam nga la la kii eh danaan faj. ah. doon faj. papa nee na dafa doon faj. xam bu sëyuloon ak kii keneen ku mu sëyal ma rey ko. dégg nga nee na xale bi. nee na xale bi bu sëyuloon ak yow ku mu sëyal mu rey ko chaque jour ma wax ko nit dana takk nit fekk mu ànd ak jinne bu soxor jinne bi ëpp nit ki bopp rey ko mu dee pourtant wax naa ko léegi waaw léegi nag macha allah bu alxuraan nekkee sa bopp. nga alxuraan moom xejul ci bopp xaj. mu leen bàyyil de ñii seen papa daal mu leen bàyyil te seen yaay da leen a liggéeyal kii sax kii sax ah bu gëmee boppam bu yàggee dina am na mu kii sama xarit bii toog waaw. bu dina am lu mu xam. moom day am yu muy gis ah ah xale jigéen bi moom ah kii mooy mooy xaritam lu ko metti moom la ko yow. waaw man tamit moo tax ma bëgg ko. bëgg kii. dama koy won ay affaire ci kër gi. ay ay ay ay affaire ay affaire si kii kii toog xale bii nii sama gel bii sama jawaat ji. c'est ma femme. ah yaa ngi may saaga nag. toog nga sama sama gel sama femme. c'est ci dara kay. dafa yàgg da bëgg ñu divorcer ak moom. ค่ะเบรตีเบรตีเบรตีwaaw Berti laa tudd waaw jëkkër ji da ngeen ko daan nax wala nu mu demee noonu jëkkër ji. comme nan. kakat kakat fu mu ko daan yóbbu kay kooku dama ko daan ba mu ma ñëwee man ba mu ñëwee man mu mu ñëwee bu mu waxee ba jàpp ma wax naa ko moom sama tur ndax da daa am mu doon tari. mooy laq moo ko sama tur. waaw ah, après. après nag mu génnee ma ne waat sar xale bi mais duggeewu ma ko foofu de dama bàyyi ba muy sangu jëkkër ji da koy tere buy sangu muy jël sër bi di ko takk fii beñuwaar bi di ko takk fii <coughs> pardon après nag mu dugg ko waaw léegi nag saa yi ma xamee da war a dem foofu rek dama rocceeku bàyyi yambar ñoom ñu dem yëpp ñu demee ñu bëggal leen ñoo ñu génn léegi man moom man moom ah, keneen ki dafa baax am na ku fi nekk mais kooku noonu kooku noonu moom kiiwul de kooku tuub na de kii am na tudd mu doon ma wooyee léegi kooku moom moom tamit waaw kooku moom moom day protéger bi te xaritu kii la ñoom ñaar dañuy waxtaan kooku seytaane la de kooku seytaane la day woo kii di waxtaan ak moom. day ñëw di wax. xëcc naa ko waaye moom day def xanaa xamoo xale bi ëmboon na. maa ko yàq. waaw. soxna si dafa ëmb wala. xoola weer bii la waroon a am 4 mois la vingt bu muy am 3 mois et quelque laa yàq ëmb bi.

waa waaye moom ki ku góor ki nitu leer la ku góor gi nitu leer la de mais loolu noonu bu ci woon du baax yàlla defal ko sutura après nag affaire bu mu yàqoo kii ah dina am doom boo xam ne mook jabar ji xam nga kii dafa siiw xam ngeen lool fi ngeen Ah, waaw waaw waaw léegi nag kii ah day tur yàlla yu muy wedd waaw léegi moom moom soxnaam si tamit. waaye du ma bàyyi mu wax ni ma mën a waxee. dangay wax ci kaw wala ma defal la affaire. waaw dama bëgg nga xam ñii xam yow li ngay wax dafa intéressé. jëkkër ji dafa intéressé ñi seetaan parce que nee nga heure bi waroon na am quatre mois de grossesse nga yàq ëmb bi lu tax nga yàq ëmb bi. maanaam ko de. nit ki ëmb yàq ëmb bi xam nga ne yow nit ku bon nga yow foofu faat nga bakkan lu tax nga def loolu. damaa topp sama sama bànneexu bakkan. waaw waaye boobu du moom boobu du moom boobu bi ma rey jigéen la bii ñëw amaluma ko mënaluma ko dara bii ñëw moom xam naa ni kooku moom kenn mënalu ko dara. man kooku budulul dara sax xam naa ni man mënaluma ko woon dara. moom ñu commencé. wax <laughs> nee na. déggoo ma naan sëñ bi xanaa da ngaa def judo li ma jaaxal sëñ bee ne ci suuf mais wëlbatiku bi moo gaaw man wëlbatiku bi dafa gaaw. dama ne ko ñun mën nga ñoo jaaxal. waaye olof nee na ku mën a yëy ba yëy yaxi bukki yëy nga yaxi yëykat yi yax ñëw nga na kër yëykat yi yax yi doj ji ngay def. gis ngeen jinne bi maak moom jàppante nañ maa ngi toog sax mu song ma daf maa song ci chaise bi daf ma attaqué ci chaise bi maa fekk maa ngi toog moom ma attaqué euh, dégg nga mu ne ba mu neex mu attaqué ma mais xam nga macha allah même bu ñu attaqué dañuy défense rek parce que bu ñu ko toppee moom jinne bi du baax ci moom dañuy défense waaw dañ ko dañuy défense gis nga ko ni ma def ak moom jóg mbaxane bi naaw gis nga ko xam nga mbaxane yi moom du mën a dugg mais bii moom fii ba l'an deux mille vingt du du du génn léegi nag jinne bi dina pare bàyyi soxna si carrément nag mu neex ko da koy bàyyi mu nakari ko da koy bàyyi loolu bàyyi force man duma la jox dara danga koy bàyyi force tarbiwu fii kooku. day won xale bu jigéen bi dakay won li koy dal nag. ko kooku mu génnee kooku. kooku noonu kooku noonu kooku am na fu mu yées lu ba pare kooku noonu ah kooku. fu nit ki jébbalu boo ñëwee fii da ngay jébbalu ci kër gi. day jàppale ku jigéen ki moo koy won lu bari kooku en xaritu kii la moom tamit. xaritu kii la. kon daal yow bi daal. waaw bu la neexee parce que man tamit du ma yar sama koy du ma yar sama du ma dama bay sama tool defar ko bu mu baax jiw sama jiw bu baax dem ba war a dagg keneen dagg ni da koy lekk. fii la ko indi ci yow mii la ko indi jiw boobu noonu. moo ko indi fee xale bu jigéen bi daanu foofu noonu. mais ah. mais. lu waaw. mais ba xale bi jigéen bi daanoo man dama man bu bu mu duggee ci géew bu moom ba nga mën man mën ni rek daa am ko ko wëndeel ah loolu <laughs> sama yaram daa tàng man la jàppale di yenu di moo ko yenu moo jàpp bi dem xoolal. déedéet solu noir ngi ci ah waaw man mii la. Ah, waaw léegi luuma luuma jinne luuma luuma jinne luuma jinne bi mooy def nii gis ngeen jinne bi walla kaana la dégg ngeen nga gis ngeen ko mbokk yi ngi gis xam nga ne lii jamais fii lu garaaw la instant bi moo ngi def ay ay moo ngi kóok moo ngi kóok xaw ma kóokali ah moo ngi kóokali. nga am fit. yow da am fit de yow ku la bàyyi mbooloo mu toll noonu noonu nga ne da man nag man yàlla daa def ni man xam man dama di noobul man moom soo ñëwul jege ma defoo say mbir man doomu du ma mës daan dama lay xool rek di la xëbal sànq gis nga ni ma la xëbalee wala laa ni ñu laa doon def. <coughs> <coughs> nañ fi Ahuda Shakir waaw waaw fii gis nañ fi. après nag jus boobu noonu man dam dangaa dam dafa dugg rek daanu bu mu ximmalikoo rek ay wàccu laa ko def ay wàccu ay wàccu ay wàccu ay yu tàng jër la doon génnee jus boobu boo noonu nee mes nee mes. may wax may wax may wax. boobu guddi na. am na am na am na ñoo xam ne am na koo xam ne ci sa groupe bi la bokkoon ah avant ki xam nga booba takku kii takkagu ko booba affaire yi dañagul à 100 pour cent de xale bi dem naan day tuuri ndox rek di saw yi waaju koj ko foofu naan da koy laaj numéro am waaye waaye <laughs> xaw mu turam xaw ma turam waaye waa jooju <laughs> xale bu di laaj turam. laaj mi mu romb. ma naan sama xel ma naan ka ma naan kii ah, kii ñàkkul jom kii ñëw di faju si mu naan da koy laaj ay numéro kii di daari buy génn ma koy def lu garaaw a garaaw. voilà kaana yi fi nekkoon yi rek jigéen ju ñu gis rek profito jël numéro moo tax du ñu xam yu leen di dal. leer na ma ne bu duggante woon ak xale bi nga defal ko bagage. poobar jot naa ko poobar sax. poobar bi kay mooy séparé koog yow rek. Mhm. poobar bi moom. traité la. Mm. ay kenn mu leebul ma dugal sa lii tiim ma nii léegi bu ko defee man xam nga man man moom damay wax li ma neex xale bu jigéen bi lañuy jàpp ñu mooy wax. doofu ñu xam nañ ne instant bi jinne bi mooy wax léegi oto bi kan moo yàq oto kii bi mbokk yi gis ngeen ñi ñaa ngi ci ci biti euh, mbirum jinne nag day jël temps gis ngeen ko léegi yow xale bi euh, oto jëkkër ji oto bi. problème bi lan la. c'est waaw. lu tax nga yàq oto bi. ah lu yàq oto bi. Hmm? boobu kat affronté na sama jabar. boobu affronté na sa jabar. kon yow yaa yàq oto jëkkër ji. loo naroon ci oto bi da ko naroon lan da nga naroon. dara kay may yàq yàq oto. waaw. nga yàq mënuloo ko dara nga yàq oto bi léegi beneen bu beneen bi tamit fu mu defee ñetti cerno mu lay dugal ko ci oto bi foofu tamit oto boobu danga nga ko naroon yàq wala. boobu li gisuma ko sax xaw ma ban la. ban oto la. Hmm. yow danga maa naroon damm nii yow. ay faj ba faj di faj di di damm damm ka ngay faj de boobu musiba la xaa ba pare yaa koy tabaxee. kay xalaatuma ko yow jinne bi laay damm gis nga ko mbokk yi bi walla kaana mu ngi kokkali ah. nee ko nii nag oh man a téewoon naan maa ngi naan xoolal gañe naa ko tey laa koy def lu ko nit mës def tey laa koy téye fii daaneel ko ci grand ci public bi ñëpp di ko gis faf yàlla nag am lu ne ñeex sama tànk bi rek tegaale ma ci suuf. non man de dama am doole. dama am doole. yow amoo doole. amoo doole. am ñu ko jàppale yow yow du génn samay wax yow. sa kanam bu ron bii. man kii mooy sama xarit kii nii mooy sama waaye moom war maa xaritoog moom sax ndax kii daa xaritoog moom kii kii ki nga xam ne moom moo am lu mu defal Sira loo xam ne Sira day am lu bari loo xam ne da koy gis lu ko war a arrivé rek ci journée bi wala luñ ko nar a malig li ñu rek da koy xam. mooy kan Ibrahima man man bëgguma xam turu kooku damaa kaa xicc ci man ba sonn waaw man tamit ma def semblant comme si que man nekkuma ci kooku man ni génn naa bu ma xamee ni tey kii dafay ñëw ndax moom chaque jour day di surveiller di bu siraa joteeg jëkkër ji moom da ciy dugg di faral siraa ndax moom daa bëgg siraa bu bëggul siraa lu ko metti siraa tamit daa bëgg rakk ji ndax xale bu jigéen bi dafa baax am jëkkër de waaye dina am jëkkër ju am xaalis waaw wow. jinne wax nag jinne lu ñuy wax rek day am boo ci bàyyee xel. moom moom moom mii ku jigéen kii de moom day dafa dafa sell moo tax dara ñemew ko dafa sell day jàpp di julli rekk di jàpp di julli rekk Sira moom. man maa koy def dañ saa day jàpp boo war a julli jàkkaarloog si jaada bi ma lemal ko si jaada bi ba mu jekk xoolal jëkkër ji am na sangat yu mu ko joxoon xam nga nu mu ko daan def man maa ko daan def loo de man mii maa daan jël biteel yi su ko jëkkër ji dafa dee biteel yi ci kaw coiffeuse bi mu war koo sangoo may jëlal biteel bi sotti ko ci siwo bi di ko wax loolu di ko wax naan kaa waa yow sa sangat bi xanaa du jeex doxal du ci xam dara de saa yi defi saa yi tegee biteel saafara ci ci kii bi mba teg ko war xale bu jigéen bi war koo sangoo mooy jëlaat saafara bi sottiwaat ko ci suuf bi jëlaat xottu biteel bi tegaat ko. <laughs> mbokk yi jinne bi wala kaana la de kii dafa mboŋ dëgg. wala kaana damaa baax ngay def xam nga ne loolu kay ah? lu tax nga daan def loolu. kii. man kay kii man dafa ma jaaxal nag ci ay alxuraan yoo xam ne mat na nii day bind rek teg day bind rek kii day bind rek kii man dama ko mënul dara man damaa ñàkk jom rek waaye man waroon naa génne ci xale bu jigéen bi moom xam ne daf ma kaa gën a bëgg waaye man man man maa ko gën a bëgg man man maa ko gën a bëgg xale bi dem xale bi daal moom xol bi dafa rafet nag waaw xol bi dafa rafet xanaa xamoo seen waa kër ndeysaan yaayama mm-hmm. daa sonn nag ndeysaan yaay xale mm-hmm. ak papam baayam mm-hmm. mais noonu la jigéen boo tarbiwoo sa borom kër macha allah rek boo amee sa ngërëm mu jëkkër rek dana feeñ ci say doom trop tard jigéen ñi nañuy muñal seen jëkkër di bëgg seen jëkkër di liggéeyal seen jëkkër di leen tarbiwu ñëwoon na ñëwoon na ci sa affaire boobu noonu ñoom ñaara àndoon waaw waaw man pourquoi man nga xàmmee ma ah xale bi dafa fës def na ko ci man waaye yow yaa def nii yaramu gone gi gis nga ni nga ni ko xonq àllum neen nga téye yaram bi lii la la nii lii ay dóor la wala la jinne bi yow ban melukaan nga yor yow lan nga ah. man xam nga lan laa ñi ñaa ngi ci biti wax ma li ma bëgg a xam. man may gaynde. gaynde nga waaw. gaynde mu mel na. ko gaynde yi rek man fitu gaynde laa yor moo tax ma ne gaynde laa. comme jëmm jinne laa yor jëmm jinne laa yor. pour ñuy seetaan ban façon jëmm. comme ni nga amee tànk mais man samay tànk tànk fas la. tànk fas la waaw. gis ngeen tànk fas la yor jëmm lan kaw gi kaw lan la. kaw gi kaw dum man yow bàyyi ma. dafa am koy feeñ ci marché. xaritam bala xaritam bu ma wax waxi kooku waaye kooku ma koy accompagner fu mu jëm dafa na ko sa yaram bi day metti mu ne waaw mu jël benn sunguf jox ko ne ko diw ko ci nee na mu diw ko ci rek mu ñëw fekk mu wér waaw. waaw jinne dañ lay feeñu. dañ lay feeñu kaar su la bëggee. xees ba ci waaw su la bëggee da lay feeñu dalay lay dimbali. Mm-hmm. par su la bëggul nag da indi ay courte carte. que nee na da man bi may woor damay man yàlla daa dogal sama àdduna damay woor rek. macha allah moom mii nag mu dem ba ci biir mu ciy mu ci moo ciy mere. mais dafa génn pare Ibrahima moom moo ko feeñu su def même que melokaan naka yow lu tax ngay mere sa jëkkër ci jaamu yàlla. mu ne ko woori mu ne ko xanaa xamoo loolu muy def pour yéen ñëpp la ak seen njaboot. waaw kooku mooy Ibrahima. waaw Ibrahima ku baax la jullit la moom jinne bu baax la vraiment waaw. léegi yow ak Ibrahima yéen a nekk ci moom ak kan. masaan nekk moom. man de. ndax moom mooy ñëw wala kan la. man mii la. Hmm. yow man la lépp ma la déggoo ma de tey dangaa bëgg dëgg lépp man la maa daan tuur lépp maa daan tuur lépp bu mu demee après am na keneen ku ko doon jox ay suuru après nag si la jëlee woon ëmb. waaw maa ko daan tuur. nit day nekk ak soxnaam. ci kaw lal yaakaar ne soxnaam la fekk ab ponkalum jinne bu yor sikkim toog tëdd nga ne maa ngi koy seetaan ci télé bi maa ngi la jéppi waaw koy gis nga maa ngi feeñal secret jinne yi dama leen xam bu baax a baax parfois góor day tëdd nii di xaran yaakaar ne sa jabar nga dendal fekkete ak ab benn kàccorum jinne moo tëdd sa wet fekk ne sa soxna tëddu fa gis ngeen ñii dañu garaaw mbokk yi waaye nag suñu boroom daf fi def lu leer fii ku fi ñëw xam gis nga maag moom contact nañ fii léegi léegi macha allah léegi nag yow moom ñaata jinne ñoo ko topp. fii ku ñëw ma dégagé la. ñëw nga dégagé kenn ki daal laa mënalul dara. mooy Ibrahima. waaw. kooku dañu xaw a tolloo âge sax xam ñaari nit buñ tolloo âge dañ ci nekk da doole gone. kooku mënaluma ko lu bari moom nag moom moom nee na yee yaay moom day sàmm xale bi di ko protéger di ko di ko dimbali ci lu bari mooy dimbali xale bi de xanaa xam xale bi lépp lu mu nit déggoo li ma li maligance ci seen kër googu moom da koy xam danaan tekk man moom wéetaay bi man maa ko daan def man maa daan bëgg di wéet di muy wéet ma koy xalaat loo muy wéet ay léegi sax wàññi na ko lu bari ndax kii kii moo ko dimbali kii mooy ñëw fekk mu tëdd mu ne ko doo jóg bu muy doog a sëy si nag lu ëpp woon loolu mu ko daan def laa jël kii mais léegi wàññi na ko ndax léegi mu ngi xaw a toog si waaye ay saa maay def yaram bi muy diis yaram bi di tayal ay méttitu biir maa ko daan teg méttitu biir yi métti métti métti di ko def méttitu biir yi métti bu daan gis règle wala bu daan sëy ma daan def dafa xat dama ko daan xatal ah, ah.

Hmm. ci man ngay teerale. Ah, waaw sànq nga naan ñii ñii ñii ñii ñii man kii ni mu ko jéppee mu taxaw di wax lan ngay traduire ku la ko sant. xalif suñu jinne yi parfois ñu sànni xeer gars yi di traduire ñu mel ni ñoom Saliou ñoom Moustapha parfois jinne yi jéppi leen waaye c'est normal du dara ñoom alseeni parfois jinne yi xas leen wax leen lu ne waaw mënul ñàkk ñoom naar ak yooyu jinne yi noonu la parce que dañ jéppi kan moo la ko jaayloo tikki doo ko wax affaire bi amul yow la jaayloo tikki doo ko wax affaire bi amul nga ne ko nga ne ko jeex na baare na comme démb bu mu ñëwee woon ñu ne ko baare nañ ponkal bi ponkal bi ngandaay boobu noonu <laughs> ko am na icopata nga ne ko amul doo ni ko baare nañ waaye ngi ñëw nga yombalal ko mbir yi nii mel naal trop danga tegul jinne yi dañuy sànni xeer gars yi parfois c'est normal parce que nag xam nga bétuwaar nag bu jëm bétuwaar xam nga ne day mere boucher yi day fii nag. kan la man. waaw ah, lu tax nga may def loolu man lu ma def. daam loo ko jox kii daam loo ko jox. kan kii daam da nga koy xanaa. yow mii fii ku nekk ci kër gi ñu protéger la kii nii kii nii kii am nga foo ko teg de. kii nii amul foo ko teg de kii kii nii yow boo téye ko ma naa ma yow pousse ma sa lii. ay xale bu góor bi génnal ci man. kii nu mu tudd wax leen ko mu bàyyi ma. xanaa si justice nga nekk yow. mooy cour d'appel des jën bi lañ leen di juger. moo am dëgg. man maa am dëgg ndax dangeen a fekk li ma yàggal ngeen foqati ko sama loxo kon dañuy négocier rek négocier la rek de affaire yi négocier la de. non ici no en a pas amul négocier. waaw déedéet. fii cour dara cour d'appel de Guinée te déjà yow dañ lay teg ay daan parce que yow da ngaa fekk jabaru jàmbur. déjà déedéet yow mayuñu la ko. boo jamoon ñaani sax ñu ne waaw yow ñaano kenn. da nga dugg ci mbedd bi. manipuler ko sonal ko yàq avenir am nekk ak moom ah, ah. ba pare rey doomam aussi déjà yow dañ laa war a atte kir ah, dañ laa war a atte ku rey nit déjà jinne bi bu ma ko fi jàppee sax dama ko war a tëj vingt ans mu doog a ma liggéeyal voilà comme dama ko war a atte c'est normal waaw ba pare travaux force parce que dafa rey doomu jàmbur aussi du ma ko jàpp noonu rek mu may liggéeyal day yomb trop xale bi. kii bu ëmbam yàq da nga koy jox garab danga koy may garab muy jabar ji utilise ba ëmbaat. yow da def loolu yow. raw loolu laay def. loolu moo gën a tuuti ci man. Mariama Kamara. ah Kamara waaw. mooy sa yaay. waaw kaa xam. kooku <laughs> jinne bi mooy wax ci Mariama Kamara de. ma ajaratu Mariama Kamara lan nga wax ci moom. mooy sa yaay. waaw de. doomu baay xale bi la. allah kon nag ah ajaratu Mariama Kamara. ay ay. doomu baay ngi nii toog waaye nag jinne wala kaana moo ko dugg fii. wala kaana de jinne noobul ngay wax man may noobul. doo noobul noobul du du ngay def du rey doomu jàmbur du du taal oto du lakk oto jàmbur. laquma ma laquma dama yow foo dëkk ci xale bi. fu ma dëkk ci lan. fu ma dëkk ci yaram bi. fépp laa dëkk ci yaram bi man damay manipuler fépp fu ma neex laay aw. waaw. maa koy tiital maa koy tiital xala maa koy tiital mais démb moom kooku du man de. kan moo ko tiital mbokk yi. ban lañ nekk. deux heures trois. ban heure jot. deux heures trois. matin jot na. ah bon. waaw c'est la euh, bii la woon net bii la woon deux heures la woon rek ay deux heures rek. ah waaw du ma fen nag du ma nag buntu néegam la nag man man du man de. yow kooku kat da doon way way yi daa man ni ki ki ki ki ka ki mu ki ka feeñu noonu ci buntu néeg bi du woon man de man moom xam na laa def yaram bi laa daan téye waaye man la kooku man la keneen ki kooku sa xarit la du si du man moom moo koy wax ne man ngi maa nekk sa wet sa jour wax nga ko fi sànq bi maa ngi lay dégg de wala nga foog ne maa tëx kooku sa xarit bi la moom moo doon. démb ki ko tiital kan la. ñaari yoon la tiit benn bi man la. beneen bi ku baax ki la muy tiitalu ko. kon moom ñaari jinne actuellement ñoo nekk ci moom jinne jullit bi Ibrahim ak jinne bii mooy jinne yéefar bi. Berto xaw ma nan. Bertu léegi Berti. Euh, waaw waaw waaw waaw waaw. eh waaw waaw waaw waaw waaw. <laughs> maa ko fekk mu toog pooj yi xonk yi nag mu aj fii tànk bi mu toog mu toog si mi toog si néeg bi jël benn tànk bi aj ko. man ma ñëw rek téye téye téye tànk bi rek téye ko téye ko rek. toog nañu lu mat waxtu mais seen jaatu kër gi kooku tamit kooku tamit oh ñii dañoo am xam-xam de ñii seen papa moom lu mu leen bàyyil. seen papa da daan faj. seen papa dafa daan faj. fajkat bu mag la woon. ñëpp a ko xam fi mu dëkk. léegi nag xale bi tànk bi dama daan def bu yeewoo ma defal ko fi benn bul mu ma ne lu jàkkaar loos bi du mën a tourner su ko waxee xarit kooku rek kooku da koy am lu mu ko jox mu ko ci sotti rek affaire bi day rees ci saa si tànk bi mu noonu laa ko def mu aj kenn mënul kii ma mën ne lu karamp te karamp dama mën ne lu teg fii benn feer comme jël feer yi ñuy ci kii bâtiment yi moom laa jël ma ne ko teg ci diggante tànk bi mënu koo tàllal ku ko laal affaire bi day mel ni sirij bay dagg toog na fa lu mat lu ëpp waxtu après rek kooku bu mu ñëwee ñu wax ko ko mu ne xaar mu ñëw mu ñëw di jël ndox mi di sotti tànk bi di tàllal boppam tànk bi di tàllal boppam ba ne ñareet waaw maa ko defoon ni ko gisee rek laa ko gisee ah. ko gisee noonu laa ko gisee. kii gis naa ko gisati ko kii gis naa ko ñaata yoon laa ko gis. gis naa ko. waaw. Mhm. am nga ji am nga jinne boo dëddee Mariama Kamara jinne bu ma tuddee Mariama Kamara sa yaay sa yaay est duma xaritoog moom bu après ma desee danga bëgg ma toog sa kër gi sa xaalis bi tax mu xotteeku ma damaa sob de mbokk yi gis ngeen jinne bi waaye ah, ma ne lii mooy lii mooy nangu naa rek parce que wax yi muy wax fii yëpp loolu la. léegi yow lan nga gën a mën sa àdduna loo gën a mën. réew ba dof. réew ba dof. c'est la première fois ma jàpp jinne mu ne damaa réew jàpp naa jinne wax na lu ne mais moom nee na dafaa réew dangaa réew ak lan. ndax boo réewee am doole ku téye Thierno Moule Sow di ko mbi jaam booje mbi ma tëggaat ah? ma. wala ragaluma dara xale bi laay bañ a gaañ ko ndax boo ko gaañee gàcce la ci yow damm doomu jàmbur fii ñu naan daa faju ci woon si internet si internet bi lañ doon bind ne xale bi daa ñëwoon daa ñëwoon faju si kenn mu lay saw damm ko loolu du fi am yow lañuy ñuy duma loolu noonu la def dañuy teg xel nit ñi ñam na xam nga bu doon yeneen sëriñ la maanaam du demee noonu léegi yow pare nga pour génn wala pare woo pour génn. comme tu voudras. ah. mbokk yi. mu ne comme ni ma ko bëggee gis nga ko. waaye naa la xamal leen de waaye def na def jàmm de kee nekk fee ki ki ki kay sàmm. da koy wax de day wan xale bi. waaw kii moom xaritam la. kii wax ni kii dama doon wax sànq yëggul de kii ah dina am jikko ju am xaalis te ñoom ñaar ñii ay complice lañu. Hmm. waaw ba pare xale bu jigéen bi loolu la xam moo tax moom kii rek moo ko xamal secret yi bari kii moo ko xam. waaw loolu moo baax nag boo boo nekkee sa mag danga koy bëgg mu bëgg la. loolu dafa am solo. xale bu jigéen bi da kaa bëgg. waaw moom moom bu gënee tafu xale bu jigéen bi xaritam boobu dina ko defal. xaritam boobu noonu seytaane bi kooku nga xam ne da leen a bëgg moom seen famille yi bëgg na leen waaw. kooku kooku jinne bu baax la. waaw moom dafa baax ndax dafa dafa bëgg kii li Sira bëgg kii mbëggeelu Sira li muy gën a yokk ci kii day gën a dooleel kii te kii dina am jëkkër ju am xaalis ñoom moom macha allah ñoom ñoom moom Ibrahima xaw ma Ibrahima moom ëmb bi kii njëkk ëmb sax kii xamu ko mu wax ko kii ne ko sa jabar daa ëmb. Ibrahima waxoon na la jabaram sa jabar dafa ëmb. jabar ji jabar ji xamul dafa ëmb kii moo ko wax Ibrahima moom moo ko ñu wax. di ko moo jóggi sama ndox. sa ndox loolu. waaye maa tuur sama ndox mu toog mu jóggi ko. ah peut-être moo dox après timi sama tuux sama dox après ñëw jog c'est ça après mu jeex. Oh, xanaa xale nga nu ngay kii lu nekk wax nga ko xanaa xale nga sa âge moom laa bëggoon xam. deux ans deux dents. deux ans deux dents. waaw ngeen su ma nee xale su ma la waxee sama âge da ngeen naan kii du xale mais war ngeen gëm ne loolu man jinne day am âge yu ëpp yooyu. waaw mais ñaata at la. am na deux mille deux ans. du ma mag. du ma mag am na ñu ma gën a nekk mag. ñi am ay quatre cent et quelque ans. waaw deux mille deux ans. 2000. waaw 2000 laa am. 2000 am waaw. man. xale laa man xale laa parce que sama famille maa ci gën a nekk xale. man sama famille maa ci gën a nekk xale. kooku waa Ndar la man duma waa Ndar. kooku waa Ndar la man duma waa Ndar. man waa kii laa waa fii laa. mbaa xam nga ni man Guinée laa jóge Guinée. waaw Guinée Conakry dëkk maamam fa laa jógee. Ah, yaa ngi doog a wax <laughs> naa dem dëkk maamam laa jógee dëkk maamam laa jógee. dem naa forêt amul fu ma dugg ci àll bi. Sigiri dëkk ba gën a rafet ci. oui xam nga wax naa leen foofu. instant bii nii ñax yi nii la. day naat dem naa Sigiri. dem naa Zéro Corée dem naa Foye amul fu ma demul ci ci ci àll bi yéeg fu dem naa fa foofu macha allah day naat quoi day tow dem naa dëkk boobu mu wax de sigili dem naa ba foofu. ma bëgg lu rafet nag dox naa de jinne bi nee na foofu la dëkk. sigili laa dëkk sigili nga nag man jinne bi ma njëkk a jàpp fii Guinée la jóge loolu euh, unité 19 la. ah waaw unité 19 maxu Guinée la jógee Guinée Conakry. Sigili. Oh, fatigué. Masanta Sigili Masanta foofu yëpp macha allah àll la yi nga xamante ne dam fa dem mais li ne ci man newul foofu xam nga boo nekkee ndaw bëgg xam-xam comme ni ma ko waxee foo dem rek foo dégg rek ci àll yi dem ndekete am na lu yàlla def ci yow bu jotul da wër rek. waaye ba mu jotee nag macha allah dëkk yooyu yëpp dem naa fa Sigili Masanta Zere Kore ñoom ñoom ñoo takkaloo Sigili Masanta Zere Kore foofu yëpp dem naa fa ba nii nii nii am na nit yu fay jóge ñëw di faju si man ñenn ñi dañ may woo foofu ne ma foofu laa nekk dama laa gis ci YouTube bi dama bëgg nga dimbali ma garab nangam nangam ba ba yàggul sax am na ki nga xamante ne ab féticheur la boobu maa ngi 19 côté yooyu la jóge dafa am ay fetis léegi nag fétiche yi am ay jinne yi ci rax xoola moo may xool de moo ngi sàcc di ma xool bu baax a baax jinne bi moo ngi sàcc di ma xool bu baax gis nga ko xool ko instant bi nii yu muy wax yëpp day camoufler mais moom may sàcc di ma xool bu baax xool ko ak bëti xoola bët bi sanq ni la ma doon xoolee ma gis ko xool yaa ngi koy gis yaa ngi jël yaa ngi xëcc gis nga ko moo ngi sàcc di profité di ma xool gis nga ko <laughs> dem naa dëkk yooyu yëpp kooku noonu ci jala kiyam yi jalangam yi dafa am ay jinne yi ci rax jinne yooyu dem na ba dafa am yére ñemeetul sol yére bi ba mu ñëwee ci man ma ne ko demal sol sa yére bi mu ne wu yére bi ñemewu ma ko sol bu ma ko solee damay feebar dafa am yi def ci yére bi jour boobu sama kër la ko solo photo yaa ngi fii sax sama kër la ko solo comprendre nga mu ne ma yére bi bu ma ko musaan sol rek dafa am yu may kii yu parce que yére bi dafa am lu ci laxasu bu ko musaan sol day am problème xam nga fajkat yi dañuy xeexante gars yi am yu ñu def ci yére yi def ci ay affaire man ma ne ko sol mu daal di koy sol sama biir kër toog photo yaa ngi fii dinaa leen woon photo yi comprendre nga fekk jala nga mi tamit am na yu ñu ci defoon te moom côté boobu la jógee jinne bi fu mu wax joxuma ko dara sax damaa wax rek affaire yi normalaat ay mbiram normal ah, waaw. Mhm. nga ne. comment mooy lan. comment doo bambara de. man ah. sa d'origine bambara waaye man dégguma bambara. xamoo Kayta Sunjata Kayta. xam naa Kamara. man xam Kayta man man dafa man gisuma ko mais dégg naa ay mbiram. dégg nga ay mbiram. moo buddi woon guy gi. waaw. ba yaa ji bëggee laaloo. dem ñaan tante ji. waaw dégg naa sànq Sira di expliqué kii. mu dem di ñaan laal tànt ji ne ko samay doom ñoo ko wuti. ci hmm. la yaay jiy jooy doom ji def ci la jógee jur boobu la si njata kay dox. Hmm. dem fekk guy bi tege rek mu buddil ko taatu guy bi indil ko. waaw waaw. fekk guy gi dafa bëri ay jinne sax jinne yi topp ko. buddi ko. waaw. xanaa xamoo xale si kii ku jigéen gi seen kër ah ay turu kii rek a fa nekk am na ko tudd simboo Simbo kooku waaw maa xam tur yooyu. Simbo kooku du gis koo tamit du gis. ndeysaan ah ñooñu ay turu kii mag la am. ay turu mag mooy mooy buur. buur mhm. koo ak koo. Simbo koo ñoom ñaar ñoom ñoo man dañ may wax Simbo ak ko ñoom ñaañooñ duñu gis ñoom ñaañooñu ndeysaan ñooñu ay jinne ñoo leen téye waaw ndeysaan gis nga waaw nga ne man lan am na loo wax léegi comment nga ne comment yow xamoo comment waaw explique ko pour ñuy seetaan comme féticheurs yi comme yéen féticheurs yi moom ñoom noonu lay mel jigéen du ko gis de moom ay ay mboqum mboqam am nañ ko mu ngi saint ah, xam naa li nga waaw jigéen du ko gis. waaw am na yi nga xamante ne jigéen du ko gis. jigéen du ko gis. am na yi nga xamante ne tamit boo ko rendilee boo ko defalee jigéen du lekk. jigéen du lekk ci ginaar googu. déedéet jigéen bu lekkee ci ginaar googu du am doom. ñoom duñu ñu togg seen togg danaa def sarax boobu ma ne leen ñoom góor yi nañu lekk loolu bu ñu ko jox jigéen ñi n'est-ce pas ber loolu ma ne leen ginaar yi góor moo koy lekk. ñoo koy lekk. maanaam temps yooyu madame nekku fi damay woo naar ma ne ko lii moom toggum góor la toggal ñu ko. góor a koy ñu dóor ko. mais bu madame ñëwee fii duma ko yóbbu kër ga dama naa alseeni lii moom toggum góor la parce que loolu jigéen du ko lekk jigéen du ko gis. yooyu yëpp a ngi fii ak man. waaw waaw loolu alseeni mi ngi nii parfois day am ay sarax yi may def foofu. dama leen naan leen lii pour yéen la quoi yu fu góor la lii xam nga tamit du lépp la jigéen di lekk am na nag yi nga xamante ne aussi. jigéen mun na ko lekk quoi bokkul mooy xam nga bagage yi dañoo bari waaw loolu mu wax noonu macha allah hmm. yooyu moo ngi fi waaw léegi yow jàkkaarloo ak man léegi dama buggoon temps bi gudd na ñi ñaa ngi fi ah léegi résumé ci ci anglais ak ci français après ñu waxtaan ak borom këram ñu xool jinne bi naka lañ koy tuubalee ba mu mun a kii daal waaw. bienvenue sur votre chaîne préférée euh, la TMS TV euh, la télévision qui montre tout ce qui est caché. Donc vous voyez, on est donc euh, au niveau du cabinet médical euh, du maréchal, le calife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, le bourreau des djinns, donc le bourreau des djinns, des sorciers, si vous voulez bien, Thierno Moulay Sow. Et nous sommes là avec une demoiselle qui s'appelle euh, Sira, n'est-ce pas, accompagnée par son mari et sa belle-sœur. Cette demoiselle maintenant est possédée en fait par deux djinns, donc un djinn qui s'appelle Ibrahim et un autre euh, djinn qui s'appelle Berti. Alors ce djinn qui s'appelle Ibrahim est un djinn assez posé qui se trouve être un musulman assez âgé et qui est quand même un, donc un esprit qui n'est pas du tout trop très très mauvais parce qu'il euh, parle souvent, il discute souvent avec le mari euh, donc de, de la dame, il discute aussi euh, peut-être il est un ami même à la belle-sœur donc euh, de la dame. Maintenant le djinn qui s'appelle Bertie est un djinn qui est un, mauvais djinn donc qui fait tout pour détruire la vie euh, de la, la dame et la vie donc, de son mari. Donc le djinn qui a révélé même qu'il a eu à donc, tout simplement détruire donc, la grossesse de la dame, donc de la femme, donc de vraiment ce jeune homme. Et il a eu aussi euh, ce djinn à vraiment détruire la voiture donc, de, de, de du mari donc, euh, de, de la dame. Donc vous voyez un peu comment Bertie est un djinn qui est assez mauvais, qui ne fait que du mal donc, dans la famille. Donc c'est pourquoi donc le mari qui a eu à faire des choses donc avec le djinn, Bertie sort souvent, il y a Ibrahim qui reste, le mari quand même qui a eu euh, quelques pouvoirs donc que son père lui a légué donc a essayé tout simplement de soigner donc la dame mais comme il, il n'y arrivait pas il a décidé donc de de de de venir ici donc au niveau donc de la maison du cabinet médical de Thierno Moulé Sow le maréchal pour qu'il puisse donc délivrer sa femme du mal en fait le mari a même expliqué que des fois quand il essayait de guérir donc sa sa sa sa femme il essayait tout simplement d'utiliser donc le corps, le Coran ou bien il était il essayait donc d'utiliser les vidéos donc de Thierno Moulé Sow. Il a même révélé une chose très importante quand le djinn euh, donc qui est assez méchant lui a dit que je vais euh, donc euh, tout faire pour que ta voiture fasse un accident. Donc le mari a eu écrire donc le nom de Thierno Moulé Sow trois fois et a mis ça dans donc au niveau du moteur, ce qui lui a valu un succès donc une satisfaction satisfaction parce qu'il a évité de justesse cet accident. Donc vous voyez un peu d'une manière assez ramassée et euh, ce qui se passe ici dans la maison de Thierno Moule Sow. Nous sommes exactement, il est exactement deux heures euh, de vraiment peut-être quelque dix minutes ou quinze. Donc il est deux heures, 22 Donc nous sommes toujours là. Hier on a terminé vers 6 heures du matin, 6h30 du matin hier, 7h. Donc aujourd'hui encore nous sommes là donc vers heures du matin. Donc nous sommes fatigués, fatigué, mais il prend donc son mal à patience. Il fait tout pour venir, donc pour aider donc la population humaine qui croit en, en lui. Il fait tout donc pour tout faire, donc pour délivrer les personnes possédées par les jinn du mal. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very lady in front of me whose name is Sira, accompanied by her husband, you know, and then by her sister-in-law. And you see Sira is being possessed by two jinns, Ibrahim and then Bertie. And then Ibrahim is a good jinn because Ibrahim is just discussing with her husband every time and Bertie is a very bad gene, very bad spirit, just trying to destroy the life of this very lady. You see then what Betty is doing. Even he destroyed the pregnancy of this very lady. You see then Betty is really bad. He even revealed that he tried to destroy the car of this very uh, husband of this very lady you see that Betty always doing his best to destroy the life of this very lady saying that this lady is his wife because he has been following her since you know a long time since you know he she was in her country in Guinea because you know Betty you know says that you know he is coming from I think it is Sigiri in Guinea Conakry yes Sigiri yes Betty you know living in Sigiri and following this lady for since a long time you see and the Khalif has been you know traveling in Sigiri in other parts of Guinea Conakry, Sarakole, something like that. You see, then the Khalif is, you know, Masanta was always traveling so as to get knowledge, whereas the knowledge was inside him, but he didn't know that, but it, it wasn't the time yet. You see, then to make it in a nutshell, what I have to explain to you is that this story is, you know, Sira is being possessed by two jinns, Ibrahim and Bertie. Then the Khalif general, you know, just made him talk because Bertie even says that he is is 2000 years old and then you know the Khalif general will be then discussing with the family with the husband and with the sister-in-law and try to see the amount of money they have to give when I talk about the amount of money I want to talk about the sacrifice they have to do so as to be able to heal this lady once for all because when you heal it when you get out the jinn you must make some sacrifices that's why the Khalif will be then discussing with the husband and then try to see how to make it happen you know so you know wait for us. This story will be going on inshallah you know in some days if they happen to have an agreement they will be you know doing his best you know the caliph will be doing his best to heal this person once for all so i led you uh, on TMS tv and the caliph general will be then talking with the husband so thanks a lot thanks for following us and stay with us on TMS tv TMS tv every time showing you what is hidden